beneen actu du jour ami internet yi safoo xibaaru 24 actu yo bàkk ba jibatina les nar a waxtaane tey di ab incendie à Louga maanaam lakk gu metti bu ñu nemmeeku ca diwaanu Louga démb ci àllarba ji bi ay 22 heures jotee ca marché central bu Louga buñ sukkandikoo rek ci RFM xayma bi mi ngi toll si ñaar fukki cantine yu si jota lakk waaye ba jamono ji ñuy wax ak yenn xamaguñ lu waral boobule lakk ba sax nag ab enquête daal na ci ubbeeku ngir ñu xam li waral boobule ñombe dinañ ci dikkaat ci suñu yeneen jotaayu xibaar. ñu wéyee ni ci am mbir mu doy waar lañu nemmeeku ca Parcelles Assainies unité un benn góor am lu toll si ñaar fukki at di ab Sierra Leonése moo daal di ñàkk bakkanam niki démb benn dalu néeg nag moo daal di daanu si kawam. jamono ji nag corps ba ña nga ko yóbbu ca hôpital Dantec ngir defal ko ab autopsie ba sax police bu Golf sidd daal na ci ubbi nag ab enquête ngir xam lu waral boobu boobule mbir ñu daal di bàyyi rek ba xam fan la wànnent di mu jékki gëtam ak boobu la ñombee daal di dal ci xale bu góor boobu boobule am lu toll si ñaar fukki at ñu wax ci leneen ci benn série bu ñu duppee infidèle ñu gis ne bi mu dooree ba léegi nit ñaa ngi si yëy yàbbi ndax ay propos comportement ak ay image yu jégg dayoo rawatina si côté jigéen ñi ba kii di waa Jamra ci njiitul Mame Makhtar Gueye defoon ab plainte jëmee ko ci boobu boobule série verdict ba nag daal di nay tombe jugee ca waa Sénéra ñoo daal di jël nag ab décision ne boobule série bu ko Sen TV bëggee wéyal di tekk day def benn pictogramme rond couleur blanche daal ciy def moins de 16 ans te di ko teg bu 22 h trente jotee maanaam nag boobule série képp koo xamante ne ni say at tollagul ci ñaar fukki at ak juróom benn na waroo koo seetaan te dañ koy teg 22h30 la maye boobule série ñu di ko teg heure boobule fekk nag ñi nga xamante ni nii mooy xale yi daal di tëdd ndax comportement yi ak wax yi nga xamante ni ñu ngi koy wax ci boobu boobule série rafetul benn yoon xale yi nag di ko seetaan série bi nag ñu ngi ko duppee infidèle boobee ba léegi bi mu commencé ba tey nit ñaa ngi ci yëy yàbbi ba démb sax bi nga xamante ni général génn na def boobu boobule annonce teewul ba tey nit ñaa ngi wëyal di ci wax ndax ne nañ loolu du dëgg du yoon am ci télé yi ndax dafay yàq li nga xamante ni moo di gone yi ñu daal di koy jeexalee ki nga xamante nii moo di Adja Diallo ñu gis ne boobee ba léegi ñuy wëy di waxtaanee ay mbiram muy def buzz jamono ji nag ci réseaux sociaux yi l'ancien mannequin boobule daal di na yëkkati nag ay kàddu ngir dañoo waxoon ne dañu koo takkaat mu daal di génn bind ci compte snapam ne loolu mësul am weddi na ko ba mu set moom Adja Diallo ne mësul marié célibataire la ne da doon foo rek te bu ko kenn yónnee ci message di waxtaan ci lu ni ki xam la yooyu le dañu koo takk loolee amul ndax moom ci boppam moo ko weddil boppam ne mësuñu koo takk loolu rek moo fi ruusandi woon nag ci ay xibaar ami internet yi dig daje lay doon ba ëllëg ay jàmm